kum fa bëgg ndaw Sénégal yi woteel ko ci wote député yi di ñëw moom njiit réew mi Macky Sall ba tax mu dig leen loo xamante ne ba léegi mënut koo def te xolof njaay nag ba wax ne dige bor la ay engagement yu état bi te dara lañ ca deful jëm ci ndaw ñi naka noona li makki Sall dig ndaw ñi ci jokkoo ak Macky ba léegi furaax daal la xëddéem dara la ca ndaw yi gisut ba tax si du quotidien mais gars yi seen affaire baaxagut de ndax makki ci diggante programme ay procès ay milliards yu xaddu jeex lépp ngir ngoro ndaw ñi sotteegut di del siwaatu Karim Wade bi nga xam ne ay farandorom ñu koy xaar l'observateur ne terewul wote député yii candidaturu Karim Wade ak pexe ya ñuy def ba jëlaat nguur gi ci lañ nekk ñoom waa PDS waaye nag faa bëgg ñu xam ne Karim Wade suñ ko jiitalee def ko tedd liste loolu du tax seen liste ya ñu dàq ko déedéet fay jàll donte fi mu toll nii diggante waa wàllu yi ak yeewi askan wi ci loolu lañ nekk di calculer est-ce que Khalifa Sall ko jiitalee leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne patronat ñu jiite wàllu tourisme bi Sénégal dugg nañu attaqué ñaawlu doxalin seen jëwriñ ji di Alioune Sarr laas yéen kaay moo ñu ko xamal vox populi na xam nga lu tax ñu mere ko fa am ay blocage ci wàllu crédit xaalis bu war a jëm ci ñoom hôteliers yi ginnaaw buñ joxee mémorandum njiiti réew Macky Sall ba tax Racine Sy fa jàpp na lu ji njàgga jëwriñ ji di Alioune Sarr moo njàgg maanaam moo tax jotaguñ seen ba le quotidien yéen kaay ko ne na benn engagement bu nguur gi jëloon jëm ci ñoom defuñu ko ne kaay na ñuy liggéey ci wàllu hôtel fa ñoo mer ba futtu ci jëwriñ ji di Alioune Sarr ndax ñoom fa ñoo jàpp ne ñoom sax amuñ jëwriñ waa ji du dara lii yéene kaay di ñu xamal ne Barthélemy Diaz waa Benno Bokk Yaakaar ya fañ koo tuumal doxalin labaj bu jaarut yoon ca maire bu Ndakaaru source ay yéene kaay di ñu xamal ne Serigne Mboup maire bu Kaolack procureur déglu na ko de yoon xam waa Dakar Actu Serigne Diagne fa ñoo porter plainte Serigne yóbbu ko ca yoon ndax ay tuumaak sos ak yàq der ak ci lañ ŋàbbee ñoom seen i firnde preuve ba tax ñu yóbbu ko ci yoon ñeneen ñu nar a nekk ci wàllu yoon mooy diggante Samuel Sarr ak Cheikh Amar coowal deux milliards ya ba léegi pënd ba wuree gudde source a moo ñu ko xamal les ko yéen kaay na ko procureur ba moom dafa sàkku ñu inculpé Cheikh Amar leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Malick Gakou ndekete xam na yeneen feem yu mooy politique ak jiite grand parti beneen fànn ba mu yëngatu jëm ci taxawu xale yi juddu faatoog jafe-jafe soxna yi ni mel lépp la leeral ci la wér journal critique yéen kaay na ko voilà fa ñuy des ci wàllu wér-gu-yaram dem ca diiwaanu Louga ngir wax leen na xàtteeb sage-femme yi ñu tëj kaso ndax ak càggante gu ñu xamaloon ca astu soxna ba mu faatu yéen kaay bi na wér-dig ba dogalu xàttee ba la ñuy wax bénéfice du doute moo ca na xam bés bi yéen kaay na ko faa koy leeral gis nga soxna bii am tax na yëf yi xam nga fan la na mujjëm njéggale ndax njabootu yi ñoo ci dox tànki jàmm ngir njabootu asu soxna ga tamit baaxale le monde journal ne tànki jàmm njabootu Omar yéen yi kay taxul benn yoon nag yoon moom def liggéeyam donte fi mu toll nii ña ngay yaakaar jàmm am si seen diggante li dul jàmm nag dëgg-dëgg Sénégal mooy wàllu wér gi ci boppam hôpital yi docteur yi jafe-jafe geraw yu du xaddu jeex ñàkk yemale ak loo xam ne xel nanguwut ko moo ci fees dell direct news moo ñu ko wax la mu ñu wax moom la solo yéene kaay mooy ne sénégalais si yebo ñu wàaj dund gu cher gi é gisaguñ daal dara ndax njëg dund gu cher gi du Sénégal rek ba bitim réew fa yokku ba tax banque mondiale ma ngay artu na boo mooy tuut réewu Afrique yi xiif gu métti moo fi nar a xam alerte yéen na ko xay xalaa yéen yëgu leen lu xew xiif gi tàmbali ni bi fii Sénégal gii njëgu dund gi fi mu tolli fa yokk cher ba jéggi dayoo te li ci gën garaaw nag mooy ne fay wëy di continuer fii ba 2024 aay yéen da waxu leen jàmm réew mi yéen moom di ñu xamal ne weeru fan yi mu jëm yii hee naaj wi fa bëgg a baxal wala mu togg doomu aadama yi tàngoor wi xam ci koor gii foo ko weesu ko métti saf sàpp la def moom yéen a kaay bi ne fuutanka ya bàyyi ko nañ fuuta ñëw ndakaaru ndax ndakaaru moom fa sedd waa yeneen diiwaan yi Kaolack ak Tamba ak Fuuta yi di mel kon ga tàng na fa de terewut yéene kaay bi ne nañ muñ rek korite gi léegi tey mu ñëw samedi nag waa aspa ne nañ kenn mun see gis weer wi waaye mën nañ ko gis dimanche wala altine kon korite gi mën naa nekk altine wala talaata tàggat yaram équipe bu mag a mag bi Real Madrid Man City moo ko jàpp di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñeenti bal si ñett waxoon naa leen ko démb moom amoon yaakaar waaye 4-3 yi ak a baax si Real ba ngeen ñëw fekk si ñu leen di wan biddiw bëccëg de nag Liverpool mooy bal stade yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom turbine yéen kaay mooy xale bu jigéen ba xam juróom-ñetti at te ñu faat ko ca Bargny ca tabax bu yeggut ba mu yelawuñ ko woon dañ koo sàcc rey ko libération na ko kara xale bu jigéen boobu nag takk derrière xam nañ ko ba teg nañ ko loxo l'observateur na ay waay alhamdulilah loolu baax na enquête yéen a kaay ne ah man kay fi mu toll ni Sénégal faa ci jaaxle rey nit gi fa gën a takkarnaase fa gën a bari presque bu set nga dégg ku ñu rey ci maa tay ba tax fi mu toll ni seen a kaaraange fa ñoo jàq mhm. ma ne yàgg naa koo wax benn pexe amul ci dakkal wàllum ray gi ci réew mi lu dul jëfe li ñu yàlla sant képp ku ray nit ci tayeef fañ laa war a ray su ko defee yow moom rayoon dootoo rayati ndax ray nañ la ku ko dégg dootu rayati ndax fay ragal ñu ray ko àtte yàlla moo gën a maandu